am suñu rew mi di ngeen ko jël yak ko xam leen da yeena ngi ci ay tiaxan voilà juge bi isa la tuddu dugalal na leen turam c'est lui le président du tribunal aujourd'hui mom la ñu recruter pour mu defal leen sen sal bulo té dooro gay moo ko recruter bu ben sénégalais déglu leneen ndax néna le leen numéro téléphone am moo nekk noonu numéro téléphone am la joxé pour yeen journalistes taskatu xibaar yi waxuma xale yi nag xale yi leen ngeen jël numéro bi di woote affiché seen numéro bu leen def loolu numéro bi dugal naa ko dugal naa numéro mais bu kenn jël sa téléphone normal nga koy woo walla nga saaga parce que dinañ la mën a dem jëli pour leneen du pour loolu dama leen ne bandi yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di yàq senegal kii nga xam ne moom la ñu recruter mooy magistrat boobu mooy président tribunal bi tey moom moo atte Ousmane Sonko Issa Ndiaye Issa Ndiaye dinañ leen dugalal photoom dugalal leen adresse am lépp dinañ ko dugal numéro téléphone bi jox naa leen ko ba pare jox naa leen numéro téléphone bi fexe leen lépp loo leen man nag ba comme li ma wax xale yi yan bu leen woote numéro bi c'est en haut j'ai mis le numéro en képp kuy taskatu xibaar képp ko am xibaar ci Sénégal woo leen ko numéro moo nekk noonu c'est numéro de Issa Ndiaye numéro bi encore une fois man naa koo répété pour ngeen amaat ko bind naa ko ci kaw 77 la 645 80 46 encore une fois 77 645 80 46 pour Issa Ndiaye nga xam ne gat sa gat sa rek bii yoon pare nañu pour yéen bala yoon da ngeen ñu bet ak is ak Ousmane te bobu jugement dinañ ko jël xam ngeen fiñ koy wat bu soobee yalla waye bi yoon incha Allah rabbi gatsa gatsa rek c'est le bandit Issa recruté par Doro gay qui a pris la décision de Ousmane Sonko da ngeen yaakar ne Sénégal Tapale man na fe amaat dedet nee les Sénégalais sont évolués sénégalais yi ci beneen étape la ñu nekk ci beneen étape voilà ça c'est le numéro du magistrat Issa nekk nii Issa Ndiaye numéro am ngeen di gis noonu 77 645 80 46 77 645 80 46 Issa Ndiaye boobu mooy président tribunal laaj leen seen bopp fan ngeen yaakaar ne laa jëlee numéro bi laaj leen loolu seen bopp xam ngeen ne luxusuma ko jékki-jékki wu ma rek luxus déedéet